Serigne Cheikh Konte ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout traditionnel nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ciy dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar ba feebar bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram li si xaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du Serigne Cheikh Konte dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM ci numéro bii di 78. 397 65 93 mbokk yi Serigne Cheikh Konté ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk. aduna heli wali jali so wonamo yeli dañata ñaami so wonamo yeli dañata dole ndaare aduna koye funti foyde ha gore jam ko heewi e dow golle bonde en ɗon boni ndaare duna funti fuyni won mm-hmm, heɓe woyoɓe kono won jaloɓe نهلي ولي جلي سوانا moyeli dañata ko ñaami so wona moyeli dañata dole ndaare aduna ko fulti foyde ha gore jam fo heewi e dow golle bonde en dam boni ndaare duna fulti fuy kono won jalooɓe ابن هلي ولي جلي سوانا ما يلي دنيا تا كو نيامي سوانا waaw loolu laay def di fii ci Colobane fii nag tey euh, ci marché bi lu doy waar moo fi am ab camion moo fi saaraan ba rey fi ay nit gis nañ li fi xew nii actuellement dañ leen ko jëlal en direct loolu moo fi xewagul pour l'instant camion bi nag moom moo saaraan moom moo def jéey euh, mel camion bi nag nee nañu amul frein mais dinañ leen jëlal ñi nga xamante ne ñoom ñoo fekkee affaire bi buñ ci mënee wax rek lan moo xew exactement ak lan moo tax mu saaraat bay ci fii ba rey fi ay nit parce que fii gis ngeen ne marché la marché la boo xamante ne ay bal lañ ci jaay ak yooyu donc bu amee choc boo xamante ne am na fi rek day daal di métti dama yoon la yow démb da nga fàtte maire Padois bi déclaration. mais mënoon nga ko wax Mati mu dugalal la. mu dem tëdd fay dem suñu Serigne Cheikh Conté ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout la nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ciy dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar ba feebar bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram li si xaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du sëriñ Cheikh Konte dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi Serigne Cheikh Konte ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk.